ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi fii ci jàmm gën seet si xale bi nga xamante ni dafa bokk ci làmb seet si xale boo xamante ni bi mu dugg see ci làmb yàggul waaye chaque jour mbokk yi dañ koy gis muy jàllale ay messages yoo xam te dafay intéressé ñi nga xamante ni mooy jeunesse bi ba tax na tey gis ngeen ko ñoo ngi fii jàmm gën bundu këram seet ko tey nag dafa génne ay moto pompe yoo xamante ni gis nañ ne askan wi ndox mi sonal na leen ñoo ngi ciy ñaxtu ñii di génn di kaas ba tax na tey mu génnee développé ay moyen génne ay jënd ay moto pompe yoo xamante ni bari na trop ba koo séddale waa gox bi ba koo séddale ñi nga xamante ni mbokk yi dañoo dëkk bi jàmm gën ndox mi sonal leen mbokk yu ku ci nekk da nga doon wax naan mbëri amuñ njëriñ mbëri seen bopp lañ fi nekkal waaye geste bi Siteu def tey war naa tax képp koo xamante ni mbër nga war na wala war naa tax képp koo xamante ni nii da ngay dund sport ah sa xel dem ci Siteu lii muy def ndax Siteu lii muy def nii royukaay la ci wàllu ba mu nekk ndax xam na ne gox ba mu nekk nit ñi soxla nañu ay moto pompe gox ba mu nekk gars yi ndox mi sonal na leen ba tax na tey mu développé ay moyen jënd ay moto pompe njëkkoon na joxe premier lot bi pompe ya jeex tey nag mu débloquewaat ay moyens jënd ay moto pompe bu ko séddale ñi nga xamante ni mooy yaa jàmm gën moo tax nag comme que ñun làmb rek moo ñu intéressé te mbërum làmb la te lii euh, war na jox képp koo xamante ni nii euh, yaa ngi dëkk ci gox bi wala jàppale waa gox bi c'est di mbër débloqué ay moyens di def lii mbokk yi autorités yi nañ xoolaat seen bopp autorité yi nañ xoolaat seen taxawaay ndax lii autorités yi la waroon gannaaw Siteu nag dafa nekk ci gox bi nekk xale bëgg waa gox bi ba tax na mu def lii mu def moo tax tey duñ ci wéet benn yoon moo tax ñu ñëw ànd si ak moom bëgg a ak moom fépp foo xam ne joxe na fa moto pompe ñu dem fa wane ko ba yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy suivre ci wasaare affaire yi mën a jàll bu baax a baax di leen jox dig daje ci kanam tuuti tuuti ñu ànd ak Siteu mu joxe moto pompe yi buñ fa jógee dinañ dem ci armée buñ paree toog waxtaan ak moom lan ma war initiative bi lépp dinañ ko yaatal fii ci wasaare ci kanam tuuti. comme joxe woon nañ pompe yu ndaw yi yu mag la ñu xool ñi ko gën a soxla ñu jox leen ko. tey man li may laajte mooy Siteu bu nga xam ne buñ ko déggee muy wax di dagaase loo xam ne maanaam day défendre population bi mu mel ni wax jooju yemale woo ko ci kese sa làmmiñ mais da ko boole ak jëf parce que jëf ji la preuve mooy lii ça veut dire que dan jël nañu fi interview wax nga ci Equivox wax nga ci li TV kaasal jeunesse bi kaasal ndaw ñi kaas seen liggéey kaas seen i jafe-jafe tey jafe-jafe yooyu am nga génne sa xaalis ak ñu lay jàpp li jël ay moyens muy alal ju bëri nga defu ko di jàppale nit ñi mu mel ni Siteu la muy wax moom lay jëf bu jëf jote waaw liggéey ngay mooy lii maanaam lii moo gën a tuuti li war a feeñ li war a lii dara lii lu war la rek ñu koy def te xaaruñu si aussi tamit dara parce que suñu wareef la parce que ñun ñoo koy dund muy jafe-jafe yooyu te mu moment bi ñu nekk lu ñu waay jàppalee lu ñu waay jàppalee lu dul suñu ndox jóge fi dafa mel ni jàppale si dara pompe yi par hasard la ñëwee waaw xalin moom ma ko indil Baye Fall bi waaw du koy sant moom xaritam waaw maa ngi koy bëggee waaw gis nga dafa am loo xamante ne lu jóge ci xol ci xol rek lay dem waaw nit li ngay def da nga koy def rek commencement mais xam nga fu muy yem waaw te ñun ay taalibe lañ nekk ay taalibe taalibe nag boo ko doonee maanaam boo gëmee ne dara jomb la dul sëriñ bi rek doo sonn waaw gëm-gëm boobu la ñu am man sama mbébét mooy lii moo gën a tuuti lu ñu war a def social wallaahi waaw. kon tey boo ko xaymaa ci parce que moto pompe yi ku ne xam na ne seer na ñaata moto pompe nga génneegu et puis xaalis boo ko doon estimé ñaata la. non bari na moto pompe yi boo ko doon jënd benn bu si nekk di nga ko jëndee 500000 wala lu jëm kaw. te tey instant bi ñu ngi ci amalu lu pendant ay quinze yoo xamante ne yu mag la daanaka dix yu mag ak yoo xamante ne cinq yoo xamante ne ñoo gën a moyen comprendre mais sant yàlla loolu lay wax di wax ne. am si si jàppale wala. defuma ci sama dërëm nag pour nga xam ko du man mais jaamu yàlla yoo xam ne bëgguñu nit ñi gis leen ñoom ñoo ko def. man geste bi rek laa am moo tax man li ma ciy gëm-gëm bi ma ci am képp ku koy def képp ku koy def Baye Fall bi mooy taal machine yëpp waaw waaw moom mooy taal machine yëpp te te yàlla rek tax moo tax mu koy def mais li ma ciy wax mooy ak waay waaw li ma ciy wax mooy lii nii Siteu defu ci dërëmam man defu ma ci sama dërëm na leer mais ma koy wax képp kuy def rek na nga jënd matériel yóndee ma ko ku koy def. waaw képp ku koy def wala képp ku ko yéene Siteu na nga jënd matériel bi yóndee mu ko. mu bañ laa jox xaalis. te de soxlawuma xaalis parce que xaalis mënul def dara mënul def dara parce que instant bii nii ku ñëw jël siwa tëbbal ñu ndox mi sànni ñu ko rek ñu mel na ni defal nga ñu ay milliards. waaw di sant àdduna nag waaw yéen amuñu seen fay yéen parce que ñun lépp lu ñuy def bu ñu leen woowee. wallaay woowu ma ci kenn mais xaw ma kan moo leen woo mais da ngeen bàyyi seen lépp ñëw kon amuñu seen fay yéen journalistes yi leen ñaanal eh, ñu dem ba ci kanam quoi ñu ànd liggéeyandoo xool ngeen xool lu ñuy def waaw. zone yi bëgg nañ dem Samsam Kalimaam Jaara armeer surtout armee yi nga xamante ne foofu lañ denc suñu waajur yi. waaw dafa inondé dafa inondé boo mënoo fa dugg mënuñu fa denc néew. ba pare ñun suñu armée dafa fees fees boo xamante ne doy na waar te bëgg nañ ñëpp jàpp si ay caare asile foofu yëpp bëgg nañ fa yóbbu. pompe yi pour ndox kese la te fépp fu ndox nekk instant bii nii am na ñoo xamee waa Kër Masar am na ñu ñu jox benn pompe jox nañ leen pompe parce que imam bi ak délégué bi ñoom ñoo fi ñëw xam naa si kanam tuuti nañ leen présenté ngeen gis leen waaw ñoom dañoo am problème ndox seen jumaa ji mënuñu julli seen lépp mënuñu def dara seen kër yi mënuñu fa fanaan mu mënuñu teg seen añ pourquoi pas ñu jël ay pompe yóbbu ko foofu loolu kese la. kon daal Siteu combat bu ko déggee nekkul ci banlieue bi. ci banlieue bi. waaw. waaw ci banlieue bi laa dëkk. man amul jàmm jàmm gën laa tàmbale jàmm gën mooy sama base. mais damay ñaan yàlla dugg gox yëpp. machine yi fu ñu dem dégager ndox mi dañ ko fay jël yóbbaal ko ci yeneen gox yi nga xam ne ñoo ko jitewoo waaw pour ñu pour loolu kese la. maire Diamaguène est-ce bi ngay bi taxawee di def geste yu mel nii ñëw na sutenir la. maire Diamaguène nag ñëwul soutenir ma mais déggante naa moom commencement mu xamal ma ne moom mu ngi ci. waaw te ñun dañoo bëggoon a ñun nekk de benn say rek àndandoor liggéey parce que liggéey bi dafa des. waxuñu ne liggéeyul nit boo koy wax da koy waxal li nga xamante ne man maire Diamaguène ñu ñoo ko fal ñun bokk nañ ñi nga xamante man maa ko campagne jour ba mu toogee laa mos dem këram jour boobu laa gij këram yaa ngi dégg te bi may gij këram dam ko xamal carrément jour bi mu toogee laa ko ne ñun jàppale wuñ la pour dara dañ la jàppale pour nga defar dëkk bi mais booba léegi dëkk bi dafa des lu bari loolu nag responsabilité la parce que moom moo jël suñu njiit nangoo nekk suñu kilifa donte état moo ko war a jàppale mu def ko mais moom moo war a teg tànkam loolu di koy kaas di koy waxee di koy jëfee bu yàggee ñu defar gox bi dégg nga ñun xëccuwuñu dara mais fii ku ñu nekkal ñu nekkal na ku ñu jàppale ñu jàppale la te il est temps mu jot ku ñuy fal ñu xam la ku fiy dugg ak loo fi mën a def ak loo soxla si ñun ñu xam ne am nga ñu njëriñ wala amuloo ñu njëriñ. seen moo sa promu nga xam ne ñoom ñooy seen association rawatina est-ce que ñun tam yaa ngi jokkoo ak ñoom pour que ñu jàppale la ci lu mel nii wala. non non jokkoowuma kenn nag wax dëgg fa yàlla mais maa ngi leen di remercier di leen yëg du question dama leen xeeb xeebuma leen il est temps ñoom ñëpp ñu jóg ñu nekkal seen bopp xam nga boo nekkalee sa gox bi nekkaloo kenn sa bopp nga neexal ndax parce que boo xewlee bëgg nga ni ñëpp ñëw man benn fan rek bu ma wootoon àdduna lépp daje parce que maa ko dundoo ak ñoom waaw loolu nag du ay tëdd nelaw du question diw laa waaw ki nga ki ngay yëg da nga rek mu yëg la waaw nañ yëgante et puis lu tax Siteu maanaam comme ko xamee des fois dañuy gis ñu siiw bu dee ci benn moment bi taamu dem uti beneen endroit dëkki fa Siteu moom choisir rek reste jàmm gën dëkk fii di dund ak ñoom lépp muy naqar muy baneex lu tax nga soi nga def boobu boobu soi. parce que yàlla moo mën na tolloon aw ma fudul jàmm gën sama xol boo ci xale jàmm gën mënu xëy journée waxtaan te waxtaanu ba jàmm kon lii la ma yàlla jox maa ngi sant waaw ñii ñoo jógee Kër Massar boo leen xoolee ñu la ay kilifa lañ boo leen demee jël leen dinañ peut-être nañ am lu ñu la wax loo xamante ne lu concret la mais du jeex bu dee dañuy wax waaw. nañ ko yemale mais wax sa mbokku yi nga xamante ne ci banlieue bi lañ dëkk geste bii nga def lan nga leen wax. nañ jóg te xam ne Siteu moomu ko Siteu moomul geste bi Siteu njëkkeewu ko inondation yàgg na fi am peut-être nit jàpp ci def ci alalam def ci dooleem peut-être nit ñi yëg ko wala bañ ko yëg mais xëy na yàlla dafa def tey xëy na nit ñëpp Siteu lañ gis mais ñoom Siteu moomul loolu Siteu defu ko nañ jóg jàppale gox bi nañ jóg jógal seen bopp ndax parce que buñ jàppee seen bopp lañ jàppale ah. bu ngeen xewlee ñoom ñëw jàppale waaw boo xewlee da ngay bëgg am ay supporters bëgg nit ñi teewal la kon da ngay teewal nit ñi waaw góor jàpp ci góor ba góor yeeg fa mu jëm. waaw kontaan nañ ci yow. quartier UCAD 1 et suñu benn dëkkandoor bu baax nag moo ñu booleeg Siteu mii waaye il est impressionnant ci yar waaw il est impressionnant ci yar lim ñu won vraiment man de vraiment ni ma ko daan gisee effet bi mu daan def ci man loolu la ma won tey tey nii nii maa ngi wala dooga am chance na gis ko nii waaye xam nga di nga gis nit moom am effet bu muy def ci kooku yàllaa koy def waaw dafa ñu lewet ñooñu am yar loolu laa gisoon ci moom te moom la ñu won nii waaw. seen i fii lan la woon. suñu dëkkandoor boobu daf euh, daf ñu booleeg moom pour mu jàppale ñu ci pompe yi parce que fi ñu toll nii mën euh, inondation yi dañu sonal trop. sama délégué de quartier adjoint bi fi ñu toll nii dafa perte sax këram ndax inondation ñu ci des aussi ndox mi laal laal na leen kooku xool ñoo dëkk fële moom sax amul yooyu problème mais mu yërëm ñu rek boole ñu ak Siteu te lim ñu waxoon yëpp gis nañ ko ci moom. li li mu lim ñu li ñu dëkkandoor bi wax yëpp gis nañ ko ci Siteu man mii personnellement ni ma ko daan gisee ci télé parce que xamoo nga vedette yi moo xam ci euh, sport la ak ci leneen ci télé la ñu faral di leen di gis ak yooyu. alors nit ki di ko gis xamoo ko sax mais tout de boo xoolee moom effet bu mu def ci yow effet boobu mu daan def ci man di ko def ci ñii ñëpp sedd nañ loolu moom laa gisaat nii bi ma toogee moom di ko ñaanal yàlla nag voilà. waaw lépp lu muy kii mu doon lu ko jëkk nag yàlla defal ko ko moo tax ma ne suñu kii nag suñu doom la di suñu imam quartier ba voilà moo tax ma ne voilà imaamu quartier bi dindil sa kii. yow yaay imaamu quartier bi Emmanuel wax léegi. waaw moom la ma yàlla nattoo eh, ñu jóge fële ca cité UCAD eh, Kër Massar. ànd ak sunu kilifa yi délégué de quartier ak adjoint ak sunu kenn si notable yi ak kenn si ñi nga xam ne ay dëkkandoo yi am taxawaay bu rafet ci ci koñ bi euh, comme ni ko sunu chef de quartier waxee euh, ñun ñëpp tey seede nañ seede yu rafet ci ki nga xam ne mooy Siteu ci acte bu rafet bi mu def muy acte bu noble muy acte boo xam ne day dugg ci cadre euh, yërmande ak dimbalante te muy slogan boo xam ni réew mi moom lañ soxla pour mën a développer wax dëgg yàlla lii mu def wane na ko ndax bu ko neexoon eh, danaan sama gox kese laay dimbali waaye yë xolu yërmaande bi muy wootee ak njàppalante bi eh, weesaara na ko ba nga xam ne ñun cité yi gën a sori sax tey jii jot nañ sunu sunu sunu sunu moto pompe eh, ñu koy ñaanal di ko santi ko gërëm ñaan yàlla mu sàmm ko aar ko ba li muy mbébét ci population ak dëkkandoo Euh, yàlla mën ko ko mën ko mën ko sottal. en tant que ay maam dinaa la laaj parce que defe naa ne yàlla am na lu mu wax ci doomu aadama ju dimbali moroomu doomu aadama tey loolu loo ci mën a wax en tant que imam parce que buñ ne imam mooy kii jiite jàkka ji jiite julli yi di tudd doom yi ak tamit bu safaan amee itam mooy taxawee taxawaay yu yëpp. Mhm. waaw diine moom naka jekk dafa mës gërëm dafa mës santaane. dimbalante euh, sunu borom tabaraka wa taala wax na ko ci alquran taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu al ithmi wal udwan sunu borom daf ñu mës a ñaax dañuy dimbalante ci mbaax ci yiw ak ci ragal yàlla ñu bañ di dimbalante ci safaan kon loolu képp koo xam ne dégg nga kàddu boobu di nga xam ni dimbali sa mbokk jullit waxuma la yowal ak tuyaa ci nekk nga xam saa sa wax na ni képp koy taxaw ci aajo sa mbokk jullit yàlla dina taxaw di faj say ajo kon euh, faj aajo jullit ñi doy na gàllaat doy na ñaan ci boo xamee njëriñ ak yiiw yi nga xam ne moom moo ci nekk ñoo xam ne dimbalante mooy mooy yor réew euh, suñu borom yàgg nañu wax ñi si suuf nañuy dimbalente ki ci kaw yërëm leen yërëm leen si suuf ki ci kaw yërëm leen kon dimbalante boobu ak jàppalante bi ak euh, taxawu say mbokk jullit ci kaw bu ñu soxlaa ndimbal ci kaw benn ngistal ci kaw benn rëy ci kaw benn jafe-jafe mais ànd ak suufee ànd ak woyof ànd ak euh, laabiir ànd ak yar tey jii teraanga bu ñu defal mooy ñu ñëw moom mi ñu dimbali toog ci suuf ak ñi mu àndal xam loolu gest bu bu bu yéeme la yow mi ñuy dimbali di nga di nga mën a nangu ndimbal ji lépp lu mën a santi loo mën a def te day woyof ngeen nga def ko waaye euh, bu doon beneen côté bi loolu du nekk lu lu kii euh, kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci sita di ko ñaanal di ko gërëm. ci taxawaay bi ak ci acte yi ak li mu yéene askan bi yal yàlla dimbale ko jàppal ko ngir loolu mu mën a mën a sotti. mu mel ni mu mel ni dinaa la fi may jaxle ak yow mooy pour Kër saar ak yeneen quartier yi sonn nañ mais Kër Massar gis nañ que ministre de l'intérieur ñëw na fa mel ni chaque année ñu ñëw fa plan ORSEC chaque année mu am te ba tey bu taw amee ndox mi ñëwaat sonlaat ñi génne leen seen ay kër tey état boobu lu ngeen leen di wax wala yow loo leen di wax en tant que imam. Euh, état bi li leen di wax mooy li kilifa yi wax rek. nañu gestu askan bi ñu dimbali leen taxawu leen xam nañ lan mooy seen i jafe-jafe te tamit euh, ñu bañ di tappale ndax réew naxtaan ak tappale yoru dëgg ak yoonal moo yor moo yorum réew euh, plan urgence dëgg la orsec mais urgence ñi jàng tubaab ñi jàng bu ñuy wax urgence mooy loo xam ne bu ñëwee dafa war a kut ne saafara bépp tawat waaye urgence boo xam ne à chaque fois day répété wu bu yàggee euh, dootul nduru dootul nduru urgence kon ñi jiite nañu xam ni euh, dañ leen a jiital ngir ñu gestu askan bi taxaw leen ci seen i mbébét ak ci seen i seen jafe-jafe loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko sànni ci ci ci ci loolu. di nga faral di seetaan làmb euh, la damay bëri. <laughs> Ah, day bëri. waaw ah, damay bëri ndax euh, sport islam daf ko santaane te luy dundal xol luy dundal société la waaw ah, damay bëri tey jii Siteu dafa mooy waaye sama yéene ci moom mooy ñu am combat waaw waaw dama gisul contrat waaye su ma gisoon contrat moom dama koy song moom. waaw. <laughs> bëri leen di lancer ñoom ay lutteurs yi nga xam ne ñu ngi Sénégal tamit di yëngatu ci làmb ci sas yu mel nii. waaw lutteurs yi daal li ma ak li ma leen di meree. mooy nañuy def lépp ci yar ak teggin parce que violence gis naa dafa bari ci làmb ji te lu lu mën a ñàkk la parce que violence daal mënul ànd ak teraanga bu la un milliard te nekkoo ci sécurité du du la jëriñ dara. kon nañu delloo ci xel yi mel nañ sport sport fair fair play la. foor nekk loo xam day day day rabale ay société day rabale ay nation moo indi jeux yi ngay gis ni yëpp nga xam ne pays pays dañuy am daje am jëflante am fair play. Euh, kon ñu éviter violence bi te lépp ñu def ko ci kaw yar ak teggin ak dal ak njub ak li nga xam ne mooy dëppoog santaane suñu borom Ousmane Sakho yàlla nattoo ñu ñuy wooy imam félicité Icad Kër Massar ñu ngeen fi tey ah jàmm gën fekk si tey ci loo xam ne ndimbal la bu mu leen war a jàppale ci seenu quartier mel ni tamit lu am solo la loo ciy wax asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen tur seen sant di leen gërëm waaw ci taxawaay bi ngeen def ndax taxawaayu jullit péer ngeen def ndax euh, ñun gisuñu yàlla kenn gisul yàlla li yàlla wàcce dafa ne def naa ko ci doomu aadama ko bëgg a jot ci samay xiiwal defal ci doomu aadama waaw te lii si def ah wane na ne jullit péer la wane na ni jullit la wane na ne alors fi mu ne nii li ne daf ko bokk doomu aadama yi yal na ko yàlla jàppale fi mu bëgg yegg yal na ko fa yàlla yeggee. ci barke Seydina Mohamed. ah ñun day kontaan nañ ci moom lool. ndaw la waaye ndaw lu am xel nii. ndaw la waaye toppul ndaw. ndaw toppul ndaw. mooy lan ndaw lu toppul ndaw. ndaw lu toppul ndaw mooy foywul àddunaam topp ndax ndaw foo la xam kii fowul waaw fi bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggee. ci barke Seydina Mohamed jaa ngeen parce que ñun suñu bopp lañ koy defal defal luñu leen ko waaw ñun suñu bopp ñoom ñuy dimbali jóg dox ko ay tànk jàmm mais wax naa ko ma ne ko boo leen jógul woon boo ñun dañuy ñëw ba foofu indi ko parce que xam nañ lan moo nekk seen problème te lañ ñaan yàlla continuer parce que affaire bi pour loolu moo tax ñu jox ñu ko waaw di ñaan yàlla affaire bi jóg rek ñun ñëpp ñu jógandóor banlieue bi képp kuy jeune nga gis ne mun nga def dara yaa ngi dégg parce que moto yi seerul yaa ngi dégg li nga jàpp ne mooy xaalis du xaalis quoi ñun ñëpp bu ñu booloo jiite suñu xol rek mën nañ ko ñu jàppale suñu papa yi jàppale suñu yaay yi mu nekk benn benn benn benn benn mbooloo boo xamante ne bu ñu jàppoo rek peut-être état sax dañuy fekk si yaa ngi dégg dañuy fekk si parce que dinañ def benn benn leneen waaw nañ jóg xool suñu nijaay yi xool suñu papa yi xool suñu imaam yi xool nu ñuy def ñu ànd ak ñoom man de loolu laa xalaat waaw. waaw. tey dafa mel ni Sénégal tamit jaxasoo bi ñuy wax ci xeet yi wala si diine bi sax parce que kii Emmanuel Kabou la tudd kon sunu mbokku chrétien la église bi moo nekk nii sa ginnaaw sa kër nekk nii mel ni kon réew mi daal te imaam mu bii nga xam waaw moo taxaw ci côté l'islam bi mel ni kon Sénégal. li maam Dabax waxoon rek tàppe xol yi ànd bokk nday bokk bàyyi munu yóbbu fi nu soxla te dafa mel ni yow ci lool ngay taxaw. dëgg ah, ci loolu la yar parce que boo juddoo am ay papa yu baax dëkkandoor ak ay waajur yu baax yow ci baax rek nga mën a sant ci nga mun a dëkk. waaw ndax parce que boo xoolee gis nga misaal bu na la jox te moom bi boo xoolee këram amul ndox sànq ñu ngi waxtaan mais ay dëkkandooram yi nga xamante ne dañoo am jafe-jafe sama ji sama mbokk séeréer la mais këram amuñu foofu ñu ñu mën a tegee añ parce que ndox kese moo wër fan ngay taalee gaz si biir ndox ah. léegi nag loolu nag ñan ñoo ko mën a dindi ñun ñëpp bu ñu booloo ñii ay mag lañ mais ñun ñu nekk jeune ñu ñoo war a jóg xam na ñun suñu papa ba ñuy ba ñuy ganee si àdduna di ñu indi ñoom yaakaar bi nañ amoon si ñun kon yaakaar boobu ñu ñu nekk jeune waruñu ko tas dañu war a ànd nekk benn yéenante jël suñu xol yi raxas ko raxas xol nag du ay wax kese nañ jogandoo rek waaw boo amul sax ñëwal geste bi rek dafa rafet geste bi rek rafet ndax parce que boo xoolee machine lu muy bari bari waxaat naa la ko sànq defuma ci sama dërëm du dërëm bu ma ci def te képp ku ma koy indil laaju ma la xaalis dama laa ne nga jënd matériel bi indil ma ko dinaa ko yóbbu fi nga xamante ñoom ñoo ko wu waaw ma leen di remercier di remercier Xaline bu baax di remercier Mansour Diongo di remercier ñi ma jàppale ñëpp waaw parce que awma ma seen fay waaw maa ngi remercier ñëpp waaw jërëjëf loolu laay wax waaw waaw